nee na wasalliman na nga nuyu alalladi ci ki nga xam ne xadimte ñëw nga alayhi ci moom in talabta ndem sàkku nga te adduban ak tegginu waaw nee ki nga xam ne yaa ko fekk si kooku nee bokk na ci ay teggin nga nuyu ko nga wax ko asalaamaaleykum ndax ki fekk si moo war a nuyoo waaye ki ñu fekk mu wartu nuyoo waaye ndem dafa nekk min hu jóge ci moom ibtida salaam mi tàmbali nuyoo bi faruddahu na nga ko delloo alayhi ci moom bil kalaam yi ci wax nan bu fekkee moom moo la njëkk a nuyu subaa na nga ko fay na ko fay te boo ko fay tam na ko fay ci wax mooy bu la waxee asalaamaaleykum ko fay ko wax ko waaleykum salaam loolu ci teggin la bokk kon del nuyoo moom sunna la waaye delloo ab nuyoo farata wa xaytuma saafaatoo foofi saafoonteeg moom fa makka ni na nga dëgëral yum naaka sa ndeyjoor min yum naaku ci ndeyjooram bil mustaxsani ci lu ñu rafetlu la nee na saa yoo ak moom mooy fekkee da ngaa jël sa loxoom sa loxo ndijoor da ngaa nuyoo moom nga jël sa loxo ndijoor dëgëral ko ci loxo ndijooram téye ku baax mu ne loolu ci bokk na ci lu ñu rafetlu bokk na ci ay tegin wala takun bul nekk naziaha di ko rocc حتى يكون لومي منك هو موم الذي دي كيغا خامني بدا نجيكنا بنز انت اك نوتش خديه بين دنا فين مان بو نيو بول بول روتش بول غاو روتش سلوخو لومي غا خاني موي كيغا خاني موم مو نجيك روتش لوخو waye bu bu ngeen de safone dal bu ñëk bu gaawa bu ñëk ro ci solo isngir kariho sibnañ ixtitaf al aidi fekk loxo fi salam ci ab nuyo bi siraat ci ak gaaw neena bokk na ci luñu sip nga nuyo di gaaw a rocc sa loxo maanaam fëkk sa loxo niyoo boo xam da nga cos sa rek loolu dañ koo sip dañu bëgg nga téye ci loxol ngay nuyo téye ko ab diir wa misloo am kemam tarkul kalaam bàyyi wax nuyo bu nepp tamit ne cel doo jàmmante doo ñaan doo def dara it loolu tamit bokk na ci luñu ñu sib sumbal musaafaxaat topp saafonte ba léegi ni ci ñaari loxo min jumlatil aadab bokk na ci mbooleem ay teggin misla zeyni kam ñaar yi wane na saafoonteeg ki ngay loxo nga ki ngay nuyu nga saafoonteeg moom tey si loxo ci loxoom mel na loolu bokk ci ay teggin ni nuyoo ak delloo nuyoo doonu teggin noonu la saafoonte moom doonu ay teggin wadda oona nga ñaan loxoo ñeel ko ànka ci yow bi xayrin ci aw yiw yaa labib yow aji xellu ji fa innahu naka moom mimma bokk na ci li nga xam ne yu kafiru day far ak zunubu bakkaar yi nee bu ko defee nga ñaanal ko aw yu maanaam ci la nuyu nga ñaanal ko aw yu ba mu mu ñaanal aw yu ndax nee la bokk na ci li far ay bakkar ak ñawtef wa in turi ndem da nga bëgg du xuula baytul tab tabbi ci neeg neegub kenen fasta azin na nga yëglu ahluhoo ñoñam tafus kon nga taxé bi xëyrin ci aw yu nee so bëgge dugg ci neegub jambur bu dul sa neeg da nga yeglu ci wa neeg wi dor bañ nga dor bu dee sam néeg moom ah, boo bëgg dugg man ngaa dugg jëru nga yëgu fa inhum ndeem ñoom xad addinoo digal nañ fii daaka ci loolu fadxul dugal wa illaa bu fekkee digaluñ la farjaan na nga dellu hunaaka foofe nee na boo yëgloo nag ñu ñu ne la jàll si duggal na nga dugg bu fekkee nag joxuñ la ndigal ci nga dugg na nga dellu fa nga jigoon rek te loolu alxuraan noonu la ko waxee laa tadxulu bu gayra buyuutikum xataa tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wala tujul bul wëndeel albasara gis ba fii bayti gayrika ci néegub kudul yow xaw fa tilaay awratin ngir ragal yër awra satara boo xam ne suturu na fii ci moom nee na boo nekkee ci néegu jàmbur tamit buñ la joxee ndigal ba nga duggi nag boo duggee ni nga téye sa gis def rek lu nekk rek nga xool ndax mën naa am awra nekk fi mën naa am awra nekk fi loo xam ne nii waroo ko na gis te bàyyi sab gis muy wëreelu ci biir néeg bi moo la ko yóbbee يعني لما تجبلو أن من الأدب بكون تتجين أن لا تمسي عن جبان يروح إلا لحاجة دارة أجو فإن من الحماقة نكبوك نتي أنروف أن تضحك أنجري من غير عجب تلد الكمتان وأن تمشي أنجروح من غير عرب تلد الأجو وأن تلتفت أنجيسو من غير حاجة تلد الأجو لأن بوك نتي أي تجين بوي روح نجروح غير صهلة ree te gisoo lu jar ree wala ngay dox te gisoo lu jar dox amu benn soxla bu jax ngay dox wala ngay geesu te amoo soxla bu jar ngay geesu loolu nee na ci ak nitu nitu lay bokk ci ak ndof lay bokk ba min xaa bokk na ci teggin it an tax tarisa nga wattandiku min an taksi wax ci nga wuññi an sara wi ci sa tubay fay na zalika naka loolu min chiami fusaaxi xasaan bokk na ci jikkoy kàccoori xasaan dana bokk na ci ay yi tamit nga bañ a wuññi sa tubay ndax loolu ay kàccoor yooyu nekkoon ci gàddu gu ñoo xasaan ñoom ñoo ko daan def te loolu amul solo ñi tam amuñ solo kon jëruñoo roy ci loolu wa an laa tag nga bañ a an bot ko ci sa biir aw wala dara min ma ci li nga xam ne bay na surdat ki sa diggante jumbax waruk ba ak sa woom fa innahu naka moom minal jahli bokk na ci ak réer wa xillatil muruati ak néew mbañum rus wax ya te moom waxtu diine mooy mbokkum diine xaytu fuqirat foo xam ne ñàkkeef na ko fuqirat ñàkkeef na ak diinu diine maa ànd ak moom waaw nee na bokk na ci ay teggin nga bañ a wokk sa biir wala ngay wokk lu tàmbale sa diggante jumbax ak sa bëtuwam ndax loolu ci ak ñàkk xam la bokk ak ñàkk mbañum rus te mbañum rus nag moog dina ay mbokk lañ fu fu amul rek foofu dina du fa am wa min bokk na ci teggin yi àndu salima nga nuyu an sallima nga nuyu ala kulli ahadin ci képp kenn xadim te ñëw nga alayhi ci moom nee na bokk na ci ay teggin képp koo xam ne yaa ko fekk si nga nuyu ko wa an tarudda nga delloo asalaama nuyu ba alayhi ci moom ida sallama ndem nuyu na alayka ci yow awalan ci njalbeen ak bu fekkee def laa nuyu tamit nga fay ko loolu ci teggin la bokk wa an saafi xaw nga saafonte ak moom wa antuma ken nga deugeral yare ka saloxo mi di ci loxom manam bo safonte ak mom nga baña yelamal man saloxo wala nga wala yu man way nga teye sa loxo jor ci ci loxo ndi bu baax wa an la ziyaha bañ kon roc hatta yakuna mbate mu nek wo mom al badi di ñeuk bi dalika ci lolo bu ko defé tam yeen nga baña gaaw roc sa lumay rek mom mi nga xamni mom nga nuyu ci mo dem ba bëgg roc ci fa inna ixtitaafal aydi naka fëkk ay loxo bi suraatin ci gaaw makruhun lu ñu sibla nee na kiy nuyoo kiy nuyoo cos maanaam fëkk loxoom nuyoo bu gaaw ba ñëwee saafoonteeg téye loxoom bu baax nee na loolu dañ koo sib ba bokk na ci teggin it antu saafixu nga saafoonteeg moom li yedee ko si loxo jami an boole seen nee na bokk na ci ay teggin tamit nga saafoonteeg ngay nuyu si ñaari loxo yëpp sa loxo nu jot ak sa càmmoñ nga boole ko téye ci loxoom wante waxte nga ñaan lëxoo ñeel ko wali naf ak sa bopp bil xëy ci aw yiw bu defee nga ñaanal ko ñaanal sa bopp aw yiw fa innahu nag moom mimma bokk na ci li nga xam ne yu kafiru day far ak dunubu bakkaar ya ndax nee na saafonte googu ak kenn ku nekk ñaana sa sa moroom aw loolu day far ay bakkaar wa min ha bokk na ci teggin yi an tasta'zina nga yëglu ida arata ndem bëgg nga du duxula baytin tabbi ci ab néeg fa in addinoon ndéem digal nañ laka ñel la daxal te nga dugg wa illaa ndéem déet buñ la digalut rajaata nga dellu nee eh, na bokk na ci ay teggin soo bëggee dugg ci am néeg nga yëglu boo yëglu nag ñu digal la duggal nga dugg bu fekkee dañ leen ne cell wala ñu leen demal nag nga delluwaat ba beneen yoon rek wala tarin bul sànni bi bés rek sëb gis fi baytin ci am néeg laa tam ko boo xam ne ni moomoo ko li àllaa tab tayaa ngir nga bañ a yër fii ci moom ala awratin ci awra nee bul dugg ci néeg boo xam ne ni moomoo ko boo duggee nag bañ jox la ndigal ba nga dugg nag bul sànni sab gis rek ci biir néeg bi ndax mën naa am nga gis fa awra joo xam ne nii waroo ko woon a xool walaatu saaxi bul ànd ak in arata ndem bëgg nga soxba àndandoo za safaxin boroomuk dese aw xasadin wala kiñaan aw raxba wala bëgg-bëgg nee na boo dee wut ay àndandoo bul àndandoo koo xam ne dafa dof am xelam matut wala ngay àndak koo xam dafa kiñaan mooy yéenewul mbokkam jullitam mu am dara wala li mu am mu bëgg mu tàggoog mu ñëw ci ma wala mu ñëw ci keneen wala koo xam daa bari ay bëgg-bëgg daa bari bëgg-bëgg yi àddina yi kooku tamit bul ànd moom walaatu tu jaalis bul toog ak xayra man kudul koo xam ne tousa def na dool dolli mi ngi ci moom diinan diina wa aqalan akum xel abadan faaw tanal kon nga am muraad na bi nee na boo dee toog ak bul toog ak ku dul koo xam ne la yokk ñaar yi da la yokk diine yokk lu am xel kooku boo lu ne loolu loolu mu la wax boo ko defee nag di nga am li nga bëgg mooy booy toog nga toog ak koo xam ne du yokk diine yokk lu am xel fa axbaru xibaar nañ bi annamal maru ci naka nit ki ala diini xalil yi mi ci diini xaritam xadiisal mooy ab xadiis nuqila la boo xam ne tuxal nañ ko nee wax nañ nit ki moom na xaritam mel rek noonu lay mel bu xarit ba jege mu jag bu fekkee ni melu nene neen tamit noonu lay mel rek loolu sax ab ab kii la loolu loolu loolu loolu kii la ab xadis la mu ne yaani li ma si jublu annahu naka moom yu sika mi ngi lay dénk bi an laa tusaaba si nga bañ a ànd ak asufaha awee desee bi an laa tujaal si ak ci bañ a toog ak illa man dara koo xam ni tas daaru da nga dolli ko bi ci moom am xel wa diinan ak diine fa inna fi dhalika naka ci lolu tanalu ngoy amé ma turidu li nga bëgg fi daarin ci ñaari kër yi nee na daf lay dénk rek nga baña and ak ñu nitoodiku ñi jeen xel matul ak boy toog tam nga toog ko xam yokku diina am xel ndax lolu motax nga mëna am li nga bëgg adina ak al-akhirah fa innal mar'a naka nit ki ala dini khalil mi ci dini kharitam qala waxna sayyiduna sunu sang ba aliyun karama taralna na allahu wacce wax ci lena falaata sax bul ànd ak axaa jahlin boroomuk réer wa iyaaka maa ngi la koy wattandikuloo wa iyaahu na ko wattu fakam min jaahilin waana ku réer arda koo xam ne ne alag na xaliman boroomum xel xëy na waa xaax waxtu mu bokkoo ak moom nee na boo ànd bul ànd ak koo xam ne dafa réer na nga ko moytu bu baax ndax barwaana ku yeewu am xel lool waaye di jaxasoo koo xam ne xamul dara ba far koo ko mujj wàll ko ala ko far yóbbu ko ci lam nekk kon boy ànd na nga ànd ko xamni ko amu xel la kulay lay ku lay jariñ yuqaasu def na qiyas al mar'u nitki bil mar'i ci nitki idha idaamal mar'u nem nitki ma maashaahu dox na ak mom ka xas wi naal ni waraw dal bin naal ci dal wi idha man naalu nem dal wi hazahu tolloo ak mom nit ku nekk rek dañ koy nat ca kami àndal day melni waraw dal dal ak moroom wa ni ñu tolloo non la nit akimi ànd non la ñu mel ñooy niroo seen lépp daanaka wala shay ñeel na dara maqaa yisun ay nattuwaay wa asbaahu ak i nuroo ala shay ci mbir maanaam mbir mu nekk rek am na luñ koy natt am na tamit luñ koy nirooleel walil xal bi ñeel na xol bi dalilun ab tegtal alal xal bi ci xol bi xëy na yalqaax a mu moom ni ko tamit xol bu nekk tamit dafa am day wane rek day wane rek moroom xol ba ca des maanaam ñaar ñi ñaar ñi ànd rek day wone seen xol ñu ànd kon ñoy bokk ay jëf di bokk ay wax di nuro lépp ñaar ñi nga xamne seen xol bokku nak duñ mëna ànd da ñëw na ci hadith mu ne xol yi dafa dafa bi ko maanaam ruu yi bi ko yàlla binde da ko def mu nek ay kuréel ay sol mu ne ay mbolo bu defé ruu yi xamante nak bu ñewé ci aduna ñoy mëna ànd ruu yi fa xamante wut nak bu ñew ci aduna duñ mëna ànd duñ mëna a bokk wali baadim ñenn leen إذا كنت نم na في قوم ndem nekk na fa sahib na nga and ak khiyarum seeni tanef wala tasab and ak al arda ku alku fatara ba ngay alku ma rajo and ak alkande gi nee na boo ci aw nit na nga xol ña ci bax nga and ak ñom waye bul seet ñu bon ñi ñu yes ña ngay and ak ñom ba far ñu yobul ci alkane jojo la tasal bul laaj al mar'i ci nit ki wasal na nga laaj an qarinihi ci kami andal, fa kullu xarini bepp andando yaqtaji dayroy bil muqarani ci kami andal man na nit ki moom jëru nga di ko laaj ni mel waaye laajal ka muy àndal rek ka muy àndal nu mel rek mu noonu lay mel walaata kon bul nekk multafitan di geesu lil ansaraat ci ay pakasal mooy ay rëcc rëcc ak i njuumte walaatu baax bul gëstu abadan faw an awra ci ay awra nee bul gëstu sikki jàmbur bul xool tamit awra jàmbur waaye nit da ngay xool lu baaxam ci moom rek la ca la ca nga maanu ci bañ koo gëstu yaani li mu jublu anna min al aada bokk na ci teggin alxasanat yu rafet yi allah takkoon nga bañ a nekk taaliban di sàkku lil asraata ñeel rëcc rëcc yi muy njuumte yi walaatu baaxit bul gëstu abadan faw anil awraat ci awra yi nee bokk na ci teggin yu rafet yi nga bañ wut nga bañ gëstu njuumte yi nit gëstu ay awraam ak i sikkam kama xiila ni ku ñu waxee ne laa taqtims bul sàkku min uyubi naas ci ay bi nit ñi maa sotoro la ñu fa yaxatiki ba muy xotti allahu yàlla na sutura an masaawika say ñaawteef nee na nit ñi seen ay bi ñu am di ko nëbb bul ko jéem a gëstu ak di ko jëm a xam ndax boo ko defee yàlla mën naa xotti say sutura ni mu suturaale say ñaawteef yàlla xotti say sutura weer la wane wane say bon bon wazkur na nga tudd maxaasina ma rafet rafet la nga xam ne fihim nekk na ci ñoom ida zukru ndem tudd na leen wala taib bul sikkal ahadan kenn minhum ci ñoom bi maa fiika li nekk ci yow nee na boo dee ko ci ab jotaay ñu wax ci nit lu nga wax ci moom lu baax la nga xam ci ñoom te nag bul ci sikkal kenn la sa sikk rek doy waaw bul ci bul ci gëstu sikki kenn wala nga sikk kenn ci biir mbooloo ku tudd rek boo xamee ci baax ci moom boo xamee sikk nga noppi te sa sikk doy la yow woo ku nekkal kama xaal ni ku mu waxee ashaaru waykat bi nee na uxibu dinaa bëgg makaarimul axlaaq yi tedd ngay jikko yi juhdi sama kam kàttan wa akrahu danaa sib an uiba ba may sikkal wa an uaaba ak ba def may sikkal nee lu baax jikko yu baax dama koy bëgg fu ma toll di def sama kem kàttan ngir jëm ko takkaayoo waaye bëgguma nee na di sikkal kenn wala may wala kenn di ma sikkal wa asfahu danaa jéggale an sibaabi naasi ci ngàññeenti nit ñi xilman ngir lewet wa charu naasi ki yées yi nit ñi man koy xam mooy koo xam ne yeex waa bëgg asibaaba ngàññante nee na nit ñi bu ma lay ngàññ ak dama leen di jégal te loolu lépp nag sama lewet la rek waaye du sama doyadi te ki yées ci nit ñi nag mooy koo xam ne nii day bëgg saagante ak fayonte ak kasante ak waxante lu bon wa man haaba ku ku ku ku wekk ak rijaala góor ñi te xëy bu ñu wekk waaw nit ñi ne ne boo leen joxee worma ak respect ñu worma la tam jox la cër wa man xaqara ku xeeb ak rijaala góor ñi fa la ñu fa la ñu haaba def ko wekk bu fekkee tamit ni tegoo nit ñi fen tamit nit ñi duñ la jox cër kenn du teg fen wala xad rafetal na man kaala ki wax na ne ida chita boo bëggee an tax yaa ba ngay dund wa diinu ko sa diine saalimun dilu mucc wa erdu ko sab der wa waxadu ko sab cër ma furin di lu ñu baril wa erdu ko sab der sayinu di lu ñoŋ moo ne di aaru lisaane ko saw làmmiñ laa tadkur bu tudd bi ci moom awra tamit na awra nit fay ndeke nekk na ci yow awraatan ay awra Wain nas ñeel nit ñi al sunu ay lamiñ neena soo bëggee dund sa dina mucc say may di gëna bari sab dar kenn du ci kenn du ci tag lu dul noona saw lamiñ bu ci tuddu waxi bu ci tuddu sikku jàmbur ndax yor nga ay sikki te nit ñi tam yor ay lamiñ maanaam nga yoré aw lamiñ di wax sikki yi tam ñi yoré ay lamiñ ci mëna wax sa sikki absaran dem gis na ay naaka sa ñaari bët ban ayib fokul waxal la ñal ko falaa tubsiri bul gis yaa ayn yow bët bi li naas ñeel nit ñi aayunu ay bët nee na sa bët sax bu xoolee sax ba gis sikki jàmbur na nga wax sa bët ne bul ko xool bul xool sikki yu ndax nit ñi kat yoruñu ay bët ni yow ni nga mën a seen sikk noonu la mën a xool wax ko waalam xamal bi anna xul fa waadun ci naka wuute ab daal wuute ab dikk muy digg xam ne ko def wa kadib ak fen min aafatil xadis bokk na ci gàkk ci ijtanim na nga tedd ànduma ci ñoom ñaar nee na digg loo xam ne doo ko def wala wax lu amut loolu bokk na ci liy yàq waxtaan bokk na li koy tilimal kon na nga ko wattandiku bu baax wa fi xadiisi man ñëw na ci xadiisi ki nga xam ne nu di mu dañuy saxal asalawaate julli ali ci moom bil ali ci ñooñ ci ñooñ ay waa këram wasaabi ak i saxaabam ak si xaan ñet yi ñu wóor mooy ndëgër laa moo ñu wóor ne aleykum dénk naa leen alxadiisa ba xadiis bi jeex ku nekkal saduxan di ab dëgg di ab dëgg laa kon waxtani bi na nga teet alkadiba fen la koy teg fooqa ngir nga kawe mu ne ñëw na ci xadiisu yonente bi nga xam ne fu ñu toll di julli ci moom ak ci ay waa këram ak i saxaabaam ne aleykum ba xadis ba jeex dina ko indi ci kanam mu ne kon nag na ngay wax dëgg na ngay wax dëgg foo toll yaani li ma jublu ne annahu naka moom yuusika mi ngi lay dégg bi an laa tagdiba ci nga bañ a fen wa bi an laa toxlifa ak ci nga bañ a wuute alwaada ab dikk wayen xaaka tam lay tere an xumaat ñoom ñaar fa innahuma naka ñoom ñaar aafatul xadis ñooy gàkk ci waxtaan waaw neen dafay dénk rek nga bañ a fen ak bañ a wuute ab dëël ndax ñaar yooyu kat baaxuñu dañuy yàq dañuy yàq waxtaan waqad xaala wax na rasulullahi yonente bi yàlla bi sala sala yàlla dul xewal allahu yàlla taala kawe na aliyu ci moom wa salamatu bi musul ko ne aleykum dénk naa leen bi sidq ci dëgg fa inna sidqa naka dëgg yahdi day gindi ilal biri jëm ci ak mbaax wa innal bira naka mbaax yahdi day gindi ilal jannati jëm ci aljanna mu ne leen maa ngi leen dénk ngeen di wax dëgg ndax dëgg kat day womb nit ki jëm ko ci ak mbaax ak mbaax day womb nit ki jëm ko aljanna wa maa yazaal du dañ ar rajulu waa ji yasduqu di dëggal waaye taxaraa muy muy nattale maanaam muy diir asidqa dëgg maanaam lu muy wax lu nekk da mu di ci dàkk ak dëgg xataa yokk te ba def koy bind fa yàlla siddiqan ab dëgg laa kon wane ne koo xam ne dëgg rek lay lay wax lu muy wax lu nekk dëgg la cee dàkk day mujj nan yàlla bind ko boole ko ñu dëgguñu ci moom yàlla wa iyaakum maa ngi leen di wattandikuloo wal kadiba ak fen fa inal kadiba naka fen yahdi day gindee ilal fujur jëm ci ak kàccoor muy ak mbon wa inal fujura naka ak kàccoor yahdi day gindee ilal naari jëm ci sawara wa maa yazaalu du dañ ar rajulu waa ji yakdibu di fen wa yataxarra muy nattale al kadiba fen wa xataa yuktaba ba def koy bind indallaay fa yàlla kazaban muy ab fenkat nee maa ngi leen di wattandiku ngeen di bañ a wax dëgg ndax fen nee na day womal nit ki jëm ko ci ak mbon ak mbon tamit da womal jëmale ci sawar mais nit nag danay fen nga xam ne lu muy wax lu nekk fen rek la ciy bàyyi xel ba mujj yàlla bind ko mu nekk ab fenkat boole ko ci ñi boole ko ci fenkat yi ci suñu borom te loolu nee na ëpp naa ëpp naa def mu ne loolu moom ab xadis la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko